internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci biir Limametti di leen remercier encore une fois ci top bu ngeen ñu top té nak yéen ngi seen biir émission sama star suñu star sen star. ñu ci dara nak xalé bu ma li muy def gëm ko té bëgg ko lool tamit ta fleur ñu bay ko mu nuyu waaw assalamu alaykum may leen nuyu yeen ñëpp di leen siyaar euh, joxati leen seen wàccuwaay. Euh, di santaat yàlla bu baax di jël ci sang-sang yi Euh, di sant nag suñu sëriñ suñu yaakaar si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul borom jumaa ji euh, du nuyu nag samay waajur bu baax a baax euh, du nuyu aussi tamit waa Jolof dëkk bi nga xam ne tey lu fleur mel ñoom la aussi di leen jaajëfal bu baax a baax di wax ne leen yokk seen ñaan aussi du leen nuyu yéen tamit ñi nga xam ne tey yéen ay euh, euh, Limametti TV di siyaar ñëpp nuy sama caméraman bu baax bi ak yow mi nga xam ne sama sama waay nga dañoo yàgg lool Khadija borom Gambia <laughs> waaw du nuy képp ki nga xam ne actuellement yaa ngi seetaan Fleur euh, te fas yéene xuus waxtaan bi. Fleur ginnaaw bi nga nuyoo ba pare suñu premier laajte mooy. Fleur kañ nga dugg ci musique ak lan moo la poussé nga dugg ci musique da nga ko édité wala. waaw euh, fleur mi ngi dugg ci musique euh, euh, j'espère que 2012 mo gën mo nek lu gëna woor quoi mais nag avant may dugg ci musique door naa à 2009 comme ça bëgg-bëgg amour bi aussi ko tax ma bëggoon musique Abdou Guité la parce que topp top toppandoo naa ko ay ay ay ay ay at aussi du xuus ay morceaux mais nag au début dama ko jàppoon ay fo quoi jëlu moon li nga xamné dama damaa demoon ba nek bëgg nek artiste top ndo Guité Seck deux ans ou trois ans après nag euh, si la ma samay fans ma gis ne soppe yaa ngi gën a yokku aussi ñu may encouragé na ma gën la jàppal sa bopp gënal yokk sa fit actuellement li nga man li ak lii quoi euh, ma xam ne aussi tamit ne doole nit daanaka moom mooy say fans man a garaaw naa xuus euh, bañ a bàyyi actuellement ma def sama premier morceau def deuxième troisième gis ne aussi tamit nit ñi ñi ngi gën a dem mën a acca kon kaaral ma dem la parce que nattu yàlla la daal pour man parce que ba may doog a débuté sincèrement ay fo laa ko jàppe woon yaakaaroon tey dinaa toll fii mais alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax aussi tamit réccu woon leen duggee si musique quoi waaw alhamdulilah rabbil alamin si loolu kon daal bu ñu déggee bëgg gi nga bëgg Abdou Guité Seck moo tax nga dugg ci musique léegi mën nañu xam sa première musique fan nga ko wéyee parce que bu ñu nee fële la la xamee fii nga njëkk a wéyee Sénégal wala Gambia waaw man nag euh, Sénégal laa njëkk wooye euh, fu ma njëkk wooye mooy sama dëkk Linguère euh, parce que maa ngi fàttaliku depuis demi-finale Oscar des vacances la woon nit ñi di toppandoo maanaam ay ndeer numéro 2 Youssou Ndour numéro 2 Pakoti numéro 2 Euh, sama waa koñ jël ma na ma dema nga yéeg waaye comme que yow da nga bëgg Abdou Guité Seck après nag ci laa ñëw yéeg euh, mu nekk loo xam ne dafa dafa nice lool population bi bëgg ko aussi mais xuus di dem di dem di dem ba egsi fii mais euh, Linguère laa njëkk a joué laa njëkk a yéegee sur scène mu métti woon nag ci man parce que damaa yéeg ñaqatee xepp parce que miinu ma ko woon bu baax mais alhamdulilah tey ñu ngi wër ñu ngi joué fu bëree bëri bëri ci Sénégal est-ce que mës nga gisante Abdou Guité Seck pour wax ko cofeel gi nga am ci moom ak royukaay bi nga am ci moom. waaw sama waay la nag euh, sincèrement borom Saint-Louis moom Abdou Guité Seck sama xarit la sama lépp la euh, ba ci album moom bu mujj bii nii boole na ma ci te xam naa ne incha allah di yàgg dara dana génn. Euh, mu nekk ku bax ki nga xamne tay defena buma naa ba ci musique sax ba tollu fi tay ni euh, lox abdi Abdou Seck mi ngi ci. la tek lox waaw mi ngi may tok loxo bu baax bax aussi euh, parce que wax deug yalla loxo mi ci man conseil mi aussi tamit gëñut ci man te aussi man lool la gëna soxla euh, parce que dama mën a ci musique rek gal def mom mu bëgg ma sop ma ba ti ñaar nit aussi ni buñu bëggante da fay neex da yombal liggéey parce que dama sentir lu muy def mom mu sentir lu may def te defena naa loolu moom ba am ci musique rek alhamdulilah quoi ça sent yalla bu baax ci lool aussi ñu gis ni tamit fleur du tok ben place tout temps mi ngi e dem va et vient yoyu fi yow fleur à part musique ci lan ngay yëngu waaw fleur nak mom mom dafa yag bëgg business xam nga ba may mujjee gisee nag Abdou Guèye Seck mo na ma fleur man ak am mëna man ndax eh, yow musique ngay def man ko no man Abdou nak man maa boole biñu musique ak business te mëna ma voilà parce que dañ la permettre nga xam ñoo ba pare da ngay am ñaar da ngay am public si musique bi am public si business bi te man en général ku ma business ak tuuti ba commencé xamante yow rek naa laa dóor samay produit ci musique bi da ngay ba da mujj nekk fan sa nekk nekk sama sama client en tout cas maa ngi musique maa ngi am sama sop bi nga xam ne fleur sop la tudd sant yàlla ci loolu noonu aussi tamit maa ngi voyager aussi tamit euh, ci programme yi di voyager aussi tamit si business bi waaw parce que maa ngi boole yëpp quoi mais xam naa nag euh, pour cent musique bëri na ci artiste yoo xamante ne comme nga baal ma ci débutant yi ngeen dégg lu nekk di ngeen ko dégg façon moo bu nekk dinañ ko jot teg seen kaw booy yi xamuñu dara dañuy taw wooy jànguñu ko nooy dundee loolu yow. waaw xam nga àddina euh, pour man kenn mënu dara lu naan ku man amut kun jàppale la moo fi am euh, fleur boo seetee yaayam du géwél papam du géwél mais maanaam musique lu ko lu ab don la quoi euh, damay dégg ko rek am na benn artiste bu ma ko dégg. mu naan artiste nekkul du du talent rek maanaam du talent kese moom mooy tax nga nekk artiste am na leen lu boote ci gannaaw artiste loolu la nekkul ni géwél rek moom ma war a woy wala nappkat géwél euh, maanaam mool kese ma war a nappi wala uddi rek ma war a ëw dañoo toll ci jamono bi nga xam ne loo sentir rek man nga ko def man Fleur dama sentir musique aussi bëgg musique euh, du mën a jàng naa musique wala xam naa musique mais la ma ci jot a am sincèrement doy na ma quoi parce que la ma jot a am yóbbu na ma fa sori may na ma ñu bëri aussi tamit xamaloon na ma ñu bëri kon maa ngi sant yàlla ci loolu ñeneen ñi nag aussi sànni xeer moom ci àddina leen ko fekk tey bu ma sànni ma ne damay bàyyi musique tamit leneen la ma a dem tamit dana ma ci sànniwaat xeer aussi euh, ci mbooloo nga jëm ci mbooloo bi ñu sànni la xeer nga ne xaama jamaat ci beneen yoon yoon boobu tamit da nga fa fekkaat ñuy sànni xeer kon yoon bi nga jël jël ko rek loolu daje nga xam ne loolu la quoi mais sànni xeer moom ñu ngi jànkonte ak moom mais grawut fleur guerre bu set la nekul géwél bu ngay dugg ci musique sen wa keur opposé wuñ ci waaw bu baax nak sincèrement euh, sama papa bañon na sama yaay bañon na mais rawati nak sama papa quoi sama papa euh xam nga rek dafa dafa xawoon kii tàngutoon mais euh, dafa bëggol ma ma ma liggéey quoi surtout ak jang mais euh dama dem ba mujj gi sumay dem programme sumay ñew euh damay jënd kilo sucre wala wala dara lo xam dana sédd xolam ma jox ko mais ba tey bëggutoon mais am na benn bés maa ngi amoon programme Daara Jolof benn ouverture Fasco la woon ma gis ouverture Fasco pare di wàññeeku pour dem Linguère euh, ma ñëw ba ci bitig bi ay 23h j'espère ay guddi yooyu noonu ma jënd kilo suukar yóbbul ko naka papa am ci programme laa jógee. jour boobu defe naa mi ngi doon xalaat suba xam naa suukar fan la koy jëlee quoi après na si la ma ñaanal na ma euh, li ma joxee suukar si yàlla na àdduna safee suukar mu nekk ñaan boo xam ne du ma ko gaaw a na lu may ñaan Euh, jour boobu laa fàttaliku nag après mu bàyyi ma nag ma am liberté totale si musique bi quoi sant yàlla tamit ba ma ñaanlee maa ngi avancement bu baax ci ci si man parce que damaa nekk jeune bi nga xam ne def nii tan commencé koo promotion bi te fu nekk la may artiste di invité te amaguma vidéo kon damay sant yàlla bu baax a baax naan dama prouvé te tàmbaleeguma te ñaan yàlla aussi mu yokk ci barke Seexul Xadiim waaw ndax dañu ni wërsëgu ndey wërsëgu fleur ndaxte des fois artistes yi seen milieu bi dafa xaw a jalouse des fois nga dem ci programme jàmbur pour wéy ñu li six micro wala doo xaar ñu invité la fi mu dem foo dégg programme nga dem yow est-ce que loolu da nga koy dund foo dégg programme nga dem saa ñu invité la wala des fois nga ñëw kooku di la sis ci ay micro waaw dañuy dal nag waaw dañuy dal yenn saa yi ñu foog ne Euh, programme bi comme man nag su ma amee programme damay yaatal ñëpp ba yenn saa sax dan may xas naan ma pourquoi sa temps nit ñi di tardé ma programme yi bëri yi nga xam ne ñu war a toog du leen fa fekk parce dañuy dem ndax artistes yi lu ñuy bëree te damay bëgg tout le temps rek artistes yi di gis seen bopp ci ci su ma amee programme maanaam damay jàppale lu may yaatalee noonu la sama morom artiste di yaatalee quoi euh, dan may invité ci lu bëri may teew yenn saa yi ñu bañ ma invité ma dem teew parce que aussi tamit euh, tollu ma fi nga xam ne dama naan damay toog ban invité ma quoi sincèrement yenn saa yi damay jóg di xool sama bopp yenn saa yi sama génn sama xaalis fay nit pour ma may ma rek ma yëg ci kaw seen pour def sama promotion. pour rek nga wëy. d'accord rek ma wëy bëri lu may dal mais aussi damay ñaan yàlla mu dem ba nit ñi tamit ñëw di ma pour ma tëggaleen seen i programme mais lu ñuy dal bëri na lool mais du. noo koy dundee su la dalee. waaw damay métti nag damay métti mais après may def daf may def jàngat quoi. waaw daf may jàngatoo lu bëri ba na aussi ay artistes yu ma koy def mais euh, dañuy dem ba mujj gi ñu daje waat ci programme wala ñoom sa mujj gi ñu fekk sama parce que liggéey lag la waaw ku lay defe naa nag képp ki nga xam ne dafa toog naan la bul jouer sama programme wala bëgguma nga jouer léegi j'espère que euh, daf la xamagut mais bu la xamoon du bañ nga jouer ci programme am après dañuy liggéeyaat rek bu liggéeyaatee yàlla mën naa def mu dem bés ba mu invité ñu c'est mm-hmm. commencé sa carrière musicale ak son nga defagum. actuellement maa ngi sama douze 12 waaw maa ngi sama 10 morceaux actuellement ñu ngi studio aussi voyagé yi xaw na bëri tuuti nag mais aussi ñu ngi ko boole ak studio bi. bu ñu kiyee ñu ngi kale 4 morceaux yi nga xam ne moom moo war a génn incha allah après màggal gi am na boo xam ne sax bu neexee yàlla dana génn laata màggal gi waaw mais yeneen 3 morceaux yi incha allah après màggal gi ak yeneen vidéo clip yi nga xam ne après incha allah ñu ngi ci bu neexee yàlla. maa ngi la gis sa benn cover Wally Seck bi boobu noonu indiwul ay jafe-jafe. waaw xawoon na maa indil ay jafe tuuti rek mais nag xam nga faramaareen bi moom la may faral di wax. Euh, garab gi meññ dërëm la ko fa jaar yendu euh, euh, dañ may faral di laaj maanaam comme que musique bi kan moo si idole man benn idole la am mi Abdou Guité Seck mais bëri ay musique bëri naa ay soppe quoi parce que Wally Seck sama soppe la maa ko bëggal sama bopp comme lu ma bëggee Pape Diouf bëggee ko Youssou Ndour bëggee ko keneen ak keneen loolu la rek aussi ma def ma gis cover bi morceau bi mu neex ma ma jël ko def ko cover parce moom dana fara maa ren man ma ñëw def doomu jolof parce que doomu jolof la dama bëgg jolof aussi jolof tamit bëgg ma lool waaw loolu moo tax ma ñëw def cover bi euh, doomu jolof woy ko aussi tamit jolof jolof yi su bëri bëgg ko euh, poussé ma si aussi tamit sant yàlla. instant yi jamono ñu toll lan moo ay projet fleur. waaw jamono bii nag bëri nañ ay projet bëriwul ay projet mais lu ci. ëppoon solo mooy que ne bëggoon nañ ci pour décembre bi ay programme yu bëree bëri boo seetee ci la corona bi ñëw ñu cancel lu bëri maanaam arrêté lu bëree bëri bëri bëri mais nag euh, lu ñu ëppal solo fu nekk nii moom mooy que ni fexe ba suñu quatre morceaux yi génn studio euh, ak suñu euh, vidéo yi nga xam ne moom la waajal après bu ñu defee promotion doomu Jolof bi ba pare incha allah te xam naa ne lu ci des bëreetut mais heure bu corona bi jàllee nag fleur incha allah day dalaat seen kaw bu neexee yàlla. mais fleur ci biir artistes yi am na ci ñoo xamante ñu ngi gën a amal a jege waaw bëri na nag xam nga aussi euh, ñu bëri sax danaa waa mais fleur kañ la fël la mais maanaam dafa am relation ci suuf bi nga xam ne jógagul ci kaw quoi parce que man maa jógagul ci kaw man maa demagul man maa demagul ci kaw mais bëri na ay artistes yu bëri euh, Sidy Diop dañu waxtaan dañu waxtaan lu bëri Bastiou ba mu fa jógee yàggul maanaam moom tamit dañu waxtaan lu bëri euh, lu mu tuddi sax Waly Seck ñu ngi préparé gisante moom ci promotion vidéo bii nii di remercier Pape Mbaye Waly ak ménagère am Ndiaga ak sama grand aussi timit euh, Mor borom Morano boutique borom Medina boutique parce que moom tamit def na ci relation bu am solo bëri na daal ay artistes ay jaww di di waxtaan bëri na daal ay ndaaraan ñi nga xam ne mën a ñoom ñi ngi waxtaan ñi ngi duggante ñi ngi demante ñi ngi diggante aussi ba ci Ousin Kayta ba xam nga programme yi si leen gis mm-hmm. si ses programme bu bëri woon coow aussi tamit euh, xam naa après dañ ci xuus pour mën a jégluwaale gars yi expliquer leen lan joué naa mais euh, maanaam après euh, xam nga programme bi rek lendemain bi dafa bëri woon coow ñu ci bëri bëri te xam nga jolof jolof dañoo diin dañoo am fulla am jom euh, programme ba mu déggee maanaam ay wax daal yu sew daal comme fleur la moo tax mu ñëw teew foofu man artiste la. fépp fu mu invité li nga xam ne sama intérêt la nag man dama faa war a dem quoi pour man euh, may jëlewu ma ko woon pour dara waaw lu ñu wax Ouzin kay la sax nekkul ci moom sakan waa fleur mi nga xam ne dafa dafa dafa jóg pour dem dem jouer ji mhm. boo nekkee artiste nekk ci milieu surtout jolof jolofe ak samay mbokk euh, fleur bi ngeen xam fleur kese la du ma mës a changé du ma mës a jeng du a def lu ñaaw waaye nag da ngeen xam ne ci musical laa nekk dama nekk si soo business bi nga xam ne dafa métti lool bëri ay coow bëri ay wax da ngeen may comprendre yi la jolof jolof yi te xam ne musique dafa compliqué yéen ñi nga xam ne dundoo leen ñu ci bëri mënuñoo comprendre mais ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci am na lu ñuy jànkonteeg lu métti li ngeen dégg ci fleur xam ngeen ne fleur melul noonu jarul ngeen di ci débat affaire boobu passé na bëri woon na ay coow mais sant yàlla alhamdulilah waaye nag am na ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci suuf pour bëgg yàq mais nag si bu baax a baax parce que ñu bëri daal dinañ xam am na yu bëri na xam mënuñu koo wax daal ci télé daal c'est ça. macha allah Fleur ñu ñëw ci sa habillement parce que gis nañ ne artistes yi léegi ñu bëri dañ di joxañ baaraam tuum parce que seen habillement lu leen neex la sol lu ñu sentir rek sol yow tey jii Fleur est-ce nañu woon xam sa habillement parce que mun nga xëy un jour nekk fi un grand artiste Fleur xëy lim sol fi jumbax aaw wala Fleur xëy bu ñu ko waxee mu ne kii bee lu leen neex ngeen def léegi yow sa habillement. mën na man mën na nekk waaye yaakaaruma ko nag sincèrement. sama mën na mën a nekk fële. non da bëgg ñu lay joxoñ tout le baaraam tuuma naan fële fële. non parce que xam nga lu tax mën na nekk mooy nekk ni xamaguñ lan moo nekk suñu kanam suñu suñu démb rek leen xam te suñu démb ak tuut leen xam parce que duñ xas ba réeré sa faat leen ko mais. Euh, sans départ parce que musique dafa dafa dafa dafa kii sans départ ci son bu ñuy def. taxawal mais yéen artistes yi bu ngeen bëggee buzz lu leen neex ngeen di def pour wut buzz. parce que parce que parce que mën naa am na buzz man dana wut buzz mais buzz bu nga xam ne après su ma demee ba wan ko ginnaaw du ma sonal quoi du sonal sama famille aussi euh, mais dinañ def li nga xam ne maanaam sama staff sant euh, sant neen ma ko ci li nga xam ne man dana méngoo ak sama diine méngoo ak sama cosaan ak sama aada quoi mais nag pas def li nga xam ne man après dañ ma ciy te bës bi ñu ci wut même pas un mois après ñu fàtte la quoi. mais bës jumbax aaru bàmba day dem ba say doom de. bien day dem ba say doom mais nag ñaanu yàlla sol jumbax aw nag mais. kon dara am boobu Ouzin Keita bi baaxoon na. Ah, fan la baaxee tamit loolu nga xam te yaa ngi dégg coow li fu ne ak robb bi mais gis nga robb beeg grand woo bi coow li waaw waaw bëri woon na coow mais après baa doo génn nga ne sa téer bee la toog non man nag moom wax dëgg yàlla ah, problème yooyu ma aw ma ko man moom sincèrement lu ma sama staff wax li nga xam ne baax na ak sama ak sama manager après ma dóor ko mu daanu quoi sincèrement mais nag danaa sol lu rafet loo xam ne samay fans bu ñu gisee bu ñu ko euh, ba na suba la programme bi may a wut lu may sañse non parce lépp mën na la cay fekk te lépp li nga xam dama ko war a dem sol dama a ci public danaa ko essayer balaa maa dem quoi tu baaxee ma continuer bu baaxul may rete ko c'est ça. te gis nañ la sa relation yéen yow ak waa Sen Petit Gallé ba relation nga am ak ñoom. waaw xanaa ñu baax rek di remercier sama tata euh, Ngone euh, ak Jim borom TFM euh, ñu baax leen quoi sincèrement ak per bu xar ñoom ñëpp daal parce que bëgguma sax di lim ju jëm bëri naa ay relation TFM ñoom dañoo baax rek dan maa invité woon seen patigale gàlle bu Mbour ma dem fa. joué fa joué fa li nga xam ne man sentir naa ne neex na ma quoi pas public bi aussi dem public bi tamit sant yàlla joué neen ak ak ak ñun bégee neen quoi. Euh, pour man foofu rek laay yem ñu invité ma bu seen euh, bu final bi euh, bu amoon stade Amadou Barry man te ma ñëwaat joué rek mais ñoom dañoo nekkoon ñu baax ñekk ñu yoon aussi tamit ñu mën a jàppale artistes waa Place Art aussi ñu baax neen lool waaw di leen sant di leen gërëm dox na aussi tamit ñaan yàlla seen Portugal la ñu waat ban defaat lu raw lu ñu defoon parce que bëri na lu ñu def ci diggante bi quoi. léegi bu ñu wax tey lan nga ñuy may tey lan nga lan waaw sans dépend nag xam nga moom dama nekk artiste bi nga xam du ma kii yeneen xool li nga xam ne tey moom mooy euh, lu leen neex ngeen. yaa xool loo sentir rek parce que ñun mënuñu xool lu ñu neex parce que ñun duñu ay artiste waaye artiste yaa xool loo sentir loo sentir rek. ok d' accord ma xool fu mu nekk nii ñu ngi ci problème mu mbënn mi ñu ngi ci corona bi am na ñu sentir mbëggeel am na ñu bëgg son yaay booy léegi ma lay wax yow la nga bëgg. ma may la tuuti dama gis ne artistes yi léegi ku ci jug tànk mbëggeel ngay way amul sonal sonal nañu tamit. sonal nañu moo tax man est-ce que dafa gum naa sax programme mu gum naa morso mbëggeel def naa. mbëggeel sonal ko morso yaay bi may ñu si may ñu si ok li may yàggoon di rêve mujj na antu sama yaay booy. li ma yàggoon di mbëbët yàlla dogal na ko tey mu mel ni su fi yamoon neex mu mel ni su fi yamoon sax neex mu mel ni yaay booy li ma doon bébét yàlla dogal na ko tey kon yaay dafa sonn lool ci doomam yaay booy ëmb juróom ñeentu weer xoolal lu mu meete jooyu guddi ñu yaay sonal la ti man suma fee nga tàggali ko sa sago lépp lu ma soxla yaay bo yaangi ci sama yaay boy sama yaay boy dama dok tok di khalat dox di janneer ngir béggal ni nama. na ma ni baay ne na ma soqaani nga wallaani nga rootaani nga footaani nga te su ma naree am nga ñàkk yàlla naa ñàkk nga am ndax yaay yaa ma boot nampal ma teg ma ci yoonu siraatal mustaxima macha allah macha allah talent baa ngi fi voix baa ngi fi yàlla na yàlla wéral baat bi yàlla def la nga dem ca kaw ca kanam incha allah boobu moo war a génne incha allah ci yàggul dara ok Fulakh ba tey ba tey ñu des ci sa musique gis nañu des fois da ngay dem Gambie est-ce que mos faa tëgg concert. waaw Gambie lu bari nag Gambie moom defe naa ne sama dëkk la man est ce ñom ñi ngi may pousser sax pour ma ñëw tok gambi quoi sincèrement ñu ma naan ma way Fleur ka tok gambi gi mais man xam eh, nga rek eh, maa ngi gis naan la gars yi ngi joggé fa dem fofu man man na tok fi da joggé fi di ñëw gambi donte nak Gambien yi bëgg neen ma lool ak Gambien yi mais manam da ngeen comprendre rek su doon sama soko Gambia ya lay ñëw dëkk surtout nak wa Sénégambia aussi wa Serekonda sama koñ ci town wa Tabakota Birkama ah, Joswan Banjul <laughs> xam nga euh, maanaam dañoo dañ ma bëgg bëgg gi nga xam waa Ibo Town aussi man mën ma comprendre lan la pas sax sama programme de mais bu ñu yégee na fleur mi ngi dem beneen programme mi nga xam dañ ko fay invité sax ñoom dañ ma fay jiitu quoi sincèrement Gambien yi aw ma seen fay gis naa seen cofel ci man euh, ak seen yéene ci man aussi tëgg naa fa ñaari programme yi xam ne man sama bopp la parce que première bi man la yóbbu ma benn artiste deuxième bi ci laa yóbbu ñoom Mandoumbe ma ñuq Badiane ak euh, ñoom Jean Michel buñ doon waajaat nak muy bu gëna mag bi waron ci and ay ñom ay artist yu mag yi gabi euh ci len corona bi ñëw quoi yàqal ñu lu bari nak mais nak sant yalla ñu ngi koy waajaat heure ba affaire offee rek len fa demat wa bas bu ma len waxon bi euh, ñi ngi fi batay job sa benen serif aussi timit ñom ñi ngi fi batay ay yenen artist yi nga xamne bëgg na len fa indi inshallah rabbi ñi ci programmation est ce que fleur paré nga pour def duo ak yenen artist yu mag yi avec les grands artistes waaw waaw pare naa pour def ko mais xam nga Sénégal artistes yi suñ la suñ la gisugut gisat gisaat la duñ la ñemee quoi lu ma doon wax sànq rek duñ xam maanaam yow yaay kan ba di la ba di la xajal seen porte te man aussi tamit sama life euh, yàkkamti naa yàkkamti wu ma maa ngi déggante ak ñoom mais amul kenn ku ma ciy déggante rek banaan la damaa bëgg def ak yow diwo parce que bëgguma leen a profitoo quoi mais am na lu may liggéey tuuti rek incha ci kanam man ku ma ne ci damaa bëgg rek nga ma acca waa loolu la quoi mais bëgguma leen a profitoo may nag am lu ñuy wàcc maanaam ay surprise yu am solo ci ay ndaanaan yi xam ne war dañoo def ñoom ay duo incha allah. sa dernier mot. Euh, sama dernier moo xanaa sant yàlla bu baax. Euh, julliwaat ci Seydina Muhammad santa suñu yaakaar Seexul Xadim si Ahmadou Bamba euh, di remercier nag waa Jolof di remercier waa Jolof bu baax a baax a baax rawatina waa Linguère. Euh, lim nag mooy problème parce que fële ñu koy jàppale dafa bari lool mais dafa am ñi nga xam mënu leen a ñàkk sant ko lu ci mel ni premier euh, monsieur le ministre le maire Aly Ngouille Ndiaye Eh, ak ñaari soxam yi soxnam yu bax yoy mi Tata Gaye Wilane ak Salimata Sow borom barke ji ak sama waju bax tonton Sayer Ba borom Linguère ak doomu ndey Mody Gueye eh, ak sama copain Abdou borom Espagne eh, jolof jolof yi bayu ma kenn kep ki doomu jolof maa ngi lay nuyu di le ziar joxati sen seen way Europe nak aussi timit ñama fa xam bari na lol metti lay nuyu di len ziar sama magi Cheikh Fleur wa Gambia sama mag euh ñom Omar ma kenn aw nga sama am liste la ma doon arrangé pour ma wax nuyu samay am di jàmm mais maa ngi leen di béggee bu baax a baax aussi tamit am na lu ñu waajal Jolof Linguère programme yi incha allah bu ñu wàññee corona bi rek mayi fa ak euh, vidéo yi nga xam ne ñu ngi koy waajal surtout nag ak clip euh, bu doomu Jolof bi dinaa leen ci may incha allah après ñun dugal ci tuuti ñamal leen ko. balaa may tàggatoo ak euh, Fleur dama koy laaj sama dernière question Fleur gis nañ na nga woy Aly Ngouille Ndiaye ba relation nga ak moom. waaw Aly Ngouille nag kenn la. kenn la ci man létti cugli cugli njiglaan njiglaan sare sare njaay jaan njaay kooku kenn la ci man doomi ndey yaaba njaay ak cooy lu may defal musuma fàttaliku Aly Ngouille Ndiaye rek ma ne ko maanaam damaa bëgg dara rek te defaluma ko même su ma ko woowee jot ma ko su ma envoyé message dana ma tontu quoi kooku moom kenn la ci man euh, ki nga xam ne aussi dafay jàpp taw bàyyi ba pare oyof loolu nag numéro moom amoon 1950 moom la yore ba léegi nii xam nga sans doute benn yoon aussi tamit lépp li nga xam ne jolof-jolof yi ñu ngi ko bëgg te moom mu yëg ko war cee jàpp dana si jàpp kon ñu ngi koy ñaanal ak moom Aly Ngouille Ndiaye euh, borom jolof maanaam nga yàgg fi lool te wér aussi tamit euh, ne soxla na monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye ak waa Linguère yëpp waa Jolof. mbokki internet yi ñoo ko déggandoo mu nekk xale bu am jom xale bu bëgg lu muy def te gëm ko aussi ñu leen jox nag dig daje ba beneen yoon bu leen fàtte ne abonné suñu page youtube limametti point com ngeen bësal cloche de notification bi leen di permettre ngeen mën a am information yi fu ngeen mën toll dig daje ba beneen yoon peace and love